loi d'amnistie bu ko Macky Sall day yóbbu assemblée nationale. Karim n'y peut rien. mais non non man question en fait question bu ma doon lu tax ma posé question mooy est-ce que parce que xam nga en fait en réalité c'est vrai que soxna si nee na président Macky Sall jox na dafa joxe ay instructions mais tuddul tour ak tour mais ñëpp xam nañ ni ci réew mi. ak assemblée nationale bi ni mu demee. bu nee nañu amnistier euh, ñooñu. Benno Bokk Yaakaar ak benn ak ak Yewwi Wallu. ku mhm. ne am quatre vingt deux xaw ma quatre vingt et un. Mhm. boo jëlee quatre vingt wu euh, bennoo mhm. boo amul quatre vingt fële di nga fa am soixante dix. parce que du ñu ngeen àndaloon Wallu Yewwi la grande question mooy Yewwi est-ce que dañuy voter. pour mu amnistie bi jàll. wala ñu bloqué ko donc la en fait en réalité argument yi ngeen di joxe yëpp est-ce que est-ce que mën na changer la donne en sachant que déjà. mbir mi commencé na ba pare est-ce que nekku leen si posture dire bugguñu tout en sachant que affaire bi nekk na ba pare parce que pour man bis bi président Macky Sall toogee conseil des ministres ne nañ leen ubbi dossier yooyu mooy ko sotti na maintenant est-ce que le le le discours des uns et des autres nekkul discours boo xam ne c'est pour en fait en réalité dire bugguñu tout en sachant que affaire ba nekk na parce que ici Sénégal bi fi président Macky Sall les ordres du chef. exécution la kii dama laajte rek. voilà merci comme mais rien pour comme dafa laajte rapidement waaye pour terminer xam nga la la.